na xool moom Pathé Sène ba xam lan la def ci aar Pathé Sène na xool ndax moom dafa am benn trophée bu ñu ko mos a jox ci aar ni ko yow yow liggéey nga ba lii ñoo la ko jox na ko xool bu ko bu ko amee wala mu jiyee benn film bu def bomb bu tax Sénégal ba fu mu génn ñu topp ko na ko Pathé Sène wane wala mu wax ko ñun Pathé Sène du suñu référence taxu ñoo jub ki gën a tuuti ci mbetteel moo ëpp Pathé Sène expérience booy li ñu def ci ay formation génn wàll gi Pathé Sène su koo def bu ko defee na génn na ko wane kon kooku du moo ñu wax li ñuy def ak lu ñu dul def parce que nit dina wax ba pare weddi boppam weddi bi mooy da nga ni première saison moom ci li ma dégg xool naa vidéo bi àggalewu ma ko parce que man comme comprendre naa li mu bëgg a wax ak intention jarul moo koy seetaan du wax bu baax mais da ni première saison gonga deuxième saison gonga troisième saison gonga quatrième saison moo am problème waxul dëgg Pathé Sène waxul dëgg ndax ku ne xam na ni production li ci gën a jafe mooy nga def sa première mais booy dem ba ay 3 4 fekk yow jëkku nga scénario bi. nit ñi comprendre nañ xam nañ li ñu war a def xam nañ fi ñu jot. foofu foofu mbaatal bi rek fi ñuy wàcce. Mhm. mais yéeg bi moo a jafe ñun moo gën a yéeg bi. ngi yéeg deux yaa ngi yéeg ba demee ba trois yaa ngi def nii. Mhm. parce que da ngay dem pour ji. problème bi mooy série yu bari bi ñu jëmee ba seen quatrième saison dañoo am problème dañ leen classe mbetteel amul loolu mooy sa question sànq bi. Mhm. mbetteel kenn classe la Sénégalais ñoo jël mbetteel dugal ko ci seen xol bëgg ko lu tax ñu bëgg ko parce que kenn ku ci nekk dund nga benn histoire wala benn problème boo xam ni wala ku la jege dund ko boo seetaanee mbégte gis ko ci. benn ñaar mu nekk série boo xamante ni du ñu wax luy déranger kenn parce que ñi fi nekk ñëpp ñi ci gën a gàtt carrière yu ñu def def nañ 15 ans wala 16 ans kon ñun xam nañu ay éducateur lañ xam nañu ñun ay yarkat lañu war a nekk ay jàngalekat. même nit ki mënut a ñàkk ba ñu def erreur mais ko defee sax public ko jégal parce que nañ xam ni kii kenn ku ci nekk da nga am sa rôle booy incarné booy joué tey jii man en tant que Serigne Ngagne amul fu ma nit di classé ma Serigne Ngagne lii war a def wala lii war a def amul ci man nañ xool ci production yow mos a def yëpp man lu ma neex laay joué man lu ma bëggee incarné incarné ko mais partisan bi wax avant muy wax waroon na présenter boppam ba xam moom la kat ba xam benn technicien la buy wax ñu xam partisan kat du comédien benn technicien la buy wax ci côté technique boo waxee. waxul ak seen njàng. techniciens yi lay waxal dañ koy tontu. wala nga ni da ngay critiquer ci scénario bi wala comédien yi benn acteur bu am expérience bu xam ne comprendre na. xam na am na xam-xam buy critiquer non dañ koy déglu parce que ñun loolu lan ñu jàngal moo tax ku am formation ak ku ko amul bokkuñu. mënuñoo yam dimension mënuñoo bokk fu ñuy xalaatee du benn te nag naa la xamal ñaar. jàng taxut a man hmm. talent kenn du ko jàng talent kenn du ko jàngal kenn suñu borom moo koy may da ngay am talent Messi lu muy def ci bal ki ko jàngal football munu loolu te jàngulu ko mais dinañ la jàngal ne la fii pelanti la fii corner la hmm. lii coup franc la loolu mën na la ko jàngal mais ba nii nga ko téye nii nga contrôlé boo bëggee dugal bal bi loolu amul loolu yàlla moo koy may nit nañu nangu li yàlla may doomi aadama hmm. lii nag wanewul dara Pathé Sène li mu def parce que moom moo bindoonu tama kon dañ koy tëggee ni tama te am na loo xam ne bis bu ko defaatee dina am problème boo xamante ni du xam fu mu koy xeex ñun ay kees waa lañu ñun ay kajoor kajoor lañu ñoo ko gën a metti quatre mille cinq cent fois boo xam xamul lu xew day laajte kan mooy Serigne Ngagne wala mu laajte ñu wax ko ñoo ko gën a metti mais lii ñu def ñun intéressé wuñ xam lu tax Serigne Ngagne da génn ci biir Sénégal wala bitim réew di présenté boppam nan kenn mooy Serigne Ngagne wala lan la def Pathé Sène moo war a dem def loolu Serigne Ngagne lan la def du ko wax day génn moom Sénégalais yi ni ko Serigne Ngagne lii la def mais Pathé Sène moo war a dem xool boppam boo xam lan la def parce que mënoo nekk bi nga ne nga ne artiste comédien ngay critiquer ci technique te li ngay wax maîtriser woo ko may wax mu gën a tableau boobu mel ni kuy def douze millions di wax ñun lay wax hmm. Pathé ëpp expérience ñoo ko gën xam li ñuy def moom xamul dara